dalee na jàmm ci suñu seen youtube képp ku doon gan ci page nag bu fàtte di abonné eh, nga activé cloche bi wasawi ci eh, vidéo yi parce que lu am solo la sama gars yi dem lañ nemeeku li nga xamante ni ñaaw na trop ci kër eh, Cheikh Bara Ndiaye nga xamante ni lakk nañ li nga xamante ni moo di otom dañoo wër batiku ñëw ci këram daanaka daal di ko sakkaaj daal di yàq lépp li nga xamante ni matériel la bu nekk ci biir këram rek ci doole nag jël pistolet daal koy tiimale ki nga xamante ni moo di soxnam ak ay njabootam ci fàttali rek Cheikh Bara Ndiaye nekk nag ki nga xamante day jox ay conseil Ousmane Sonko en même aussi di défendre défendre ki nga xamante ni moo di leader bi bi nga xamante ni foofu lay nekk di wéeru def daanaka fa la gars yi jubal directement daal koy dajji daal di koy jël moom si jëm boobam Cheikh Bara Ndiaye daal di koy yóbbu mu nekk lu ñaawa ñaawa ñaaw bi nga xamante ni daanaka Cheikh Bara Ndiaye kenn gisu ko mu wax lu ñaaw wala kenn gisu ko mu woote violence benn benn benn yoon je pense que war nañ ko a bàyyi mu nekk si jàmmam ak suñu xam-xam bu gàtt mais daal bu ñu sukkandikoo si xibaar xibaar yi ñu ne carrément ki nga xamante ni moo di Cheikh Bara Ndiaye instant yi daal kenn mënu koo teg lu ko waral mooy ni carrément Ousmane Sonko li ñu ko ji ba problème am donc li ñu ko teggi teg leneen li nga xamante mooy li gën a ñaaw ci kaw deram rek mën koo daanaka daan ay atu kaso yu bëri bëri bëri jaa ngeen jëf képp doon gan ci page nag bu fàtte di abonné nga activé cloche ci WhatsApp ci vidéo yi je compte sur vous sama gars yi